di jaajëfeel bu baax yéen suñu internet leen nuyu di am contentement yéen chaque jour mbégte bi nag mooy di leen indi li gën a fës ci bopp xibaaru làmb ci noonu nag damay nuyu ki ma feggool di Assane Waalo daal di ñëw jukkil leen li gën a fës Assane naa la ne Mbacke fay naa la di nuyu internet wu Leewtoo TV amaan mbégte yéen pour indi leen li gën fës ci yéen ko ay làmb ji ci noonu nag Leewtoo point la ñuy dooree xibaaru làmb lam xam le nag mooy Gaston Mbengue ficelle la combat Boy ñaar 2 Tapha Tine record daal di ñu jàll ci ne combat boobu mooy duelu banlieue bi journal suñu làmb nag ba mu xëyee ca xëtam bu njëkk lam ca xam ne nag mooy Boy Niang 2 Tapha euh, Boy Niang 2 Balla Gaye numéro 2 ficelé hier Gaston Meng nag jox na gars yi sukkaru koor bu mag a mag Assane dëgg la Ndeye Mbacke information boobu pratiquement journaux yëpp ñoo ci revenir Leewtoo point net ñëw na ci suñu làmb record euh, tamit euh, ñëw na ci Leewtoo point net bi mu ko yëgee dafa Gaston Gaston euh, nee ne combat boobu mi ngi ko prévoir année prochaine nee na saison prochaine daal la koy la ko prévoir looloo tax Leewtoo point net ne Gaston ficelle le combat Boy Niang pour la saison prochaine suñu làmb également dikk na ci kii boobu combat boobu moom li mu gis nee Gaston dafa. offrir benn suukaru koor bu mag amateur u lidi record moom li mu gis nee ne Gaston décroche euh, Balla Gaye euh, Boy Niang 2 Ndeye Mbacké ca loolu nag ginnaaw signature ba mu amee kii di Balla Gaye numéro 2 daal dina ci yëkkati ay kàddoom lam ci xamal nag Boy Niang 2 nee na ko am na benn kaasu fondé bu tàng jër bu nekk ci ay loxoom waaye dina naanat beneen ndax combat bi du doon luy yomb Assane dëgg la Ndeye Mbacké ginnaaw signature yi ñaari mbër yi ku nekk réagir na Balla Gaye moom li xam ne nee ne Boy Niang am na kaas fondé bu nekk euh, ci loxoom yi mel na naa te après dina amaat benn kaas bu koy xaar li mu bëgg wax foofu nee na am na combat moom ak tafaatin après moom lay dajeek moom ga Balla Gaye wax na également ci euh, combat bi nga xam ne war na dox ci moom ak Tapha Tine nee na xam na xam moom ak euh, Boy Niang 2 na xam na Boy Niang 2 depuis 2006 boobu mu ngi doon fréquenté Pikine neen nag moom moo ko mag waaye ñoom ñëpp ci même génération bi la rek. mu ngi doon nag ginnaaw Balla ba mu waxee kii di Boy Niang doomu déggoo ba tontu na ko nee na ko ñaanuma la dara te loo may ma jël ndax ba ngay daan Alioune Seye maa nga taxaw te loolu daf maa metti bor la te dig ma ko fay Assane dëgg la Boy Niang moom dafa teel a wax boppam nee na ñaanul dara ba kii di Balla Gaye 2 te lu mu ko may mu jël nee na euh, daf ko jàppal euh, dan euh, daf ko jàppal mer ndax Boy sëy mi nga xam ne ni xaritam la woon grand am la woon ba mu koy daane boobu mi ngi woon ci côté toog te dafa jooyoon jooy yu métti ginnaaw defet boobu Balla Gaye joxoon Boy Sey 2 nee na daal. défaite boobu wala revanche boobu la bëgg a jël si nee également mi ngi remercier Pape Thialis Faye mi nga xam ne nii dafa nekk contra ak moom nee na na ko mu euh, accepter lii ba pare permettre ko mu am beneen euh, contrat ci kaw contrat bi mu am ak Tapha Tine ca noonu nag kooku di promoteur ba di Gaston Meng le Don de la lutte sénégalaise am ci xam ne nag mooy combat bi janvier 2022 la ko nar a taxawal kon gars yi ku ci ku yàqamti combat bu doo xaar ko janvier 2022 fekk gars yi ku ci nekk yàq la nga sóor ndax ku ci nekk am combat ñoom ñaar. dëgg la Ndeye Mbacke ni nga ko waxee noonu la ku nekk am na combat ndax euh, Balla Gaye de war na. dajeek Bombardier kii di Boy Niang 2 war na dajeek euh, Tapha mais Gaston li mu wax nee ne combat boobu yëpp ñoom ñaar ñëpp ba tan pare seen euh, duel yooyu ba pare lay doog a prévoir combat bi looloo tax mu jàpp ko atu janvier 2022 boobu daal la euh, prévoir combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 ca noonu nag kii di Aziz Alé Ndiaye daal dina ci àddu moom mi nga xam ne agent Balla Gaye numéro 2 la Lion de Guédiawaye nee na combat bi c'est le sommet lam ci xam ne nag mooy mu ngi soo ko jot Assane dëgg la combat bi promoteur yi ko bëggoon bëri na mais mi ngi doog a jot loolu tax euh, Aziz Ndiaye ne combat bi euh, promoteur yi bëggoon nañ ko mais mi ngi doo a jot nee na nag du combat bu ndaw combat au sommet la nee na itam wax na itam ci combat bi war a dox ci ñoom ak Bombardier nee na signé ak Boy Niang waaye combat bi war a dox ci ñoom ak di euh, Bombardier combat bu jël au sérieux la te den ko préparé na normalement comme ni mu waree. ma ngi doon nag ginnaaw ba amateur di yuuxu combat nga xam te nii mooy Puncheur de Wal du Lac de numéro 2 ak Gris Bordeaux le tigre de Fass moom nag lam ci xam ne mooy delloo na avance boobu kam bëgg a bëreel mooy Balla Gaye numéro 2 daal di jël revanche am Assane dëgg la Ndeye Mbacke combat contre le puncheur di Waalo plébiscité xam nga ginnaaw bi Eumeu Sène wala bi Lac de Guiers daane Eumeu Sène ñu bëri dañ ne eh, Gris Bordeaux ba moo nekk pour euh, moom moo nekk ci kanam pour affronter eh, kii di Lac de Guiers 2 Gris Bordeaux mu gisul loolu nee na moom kenn mësu ko proposé Lac de Guiers te moom sax bëtam teg na ko ci keneen ci Balla gay la ko teg revention am boobu daal pour le moment moom la bëgg a jëli ci kanam kii di Balla Gaye au lieu que muy dajeek Lac de Guiers te noonu nag kii di coach Konaté lam xam ne ci Leewtoo point net mu ngi défendre mbër yi ñu sanctionné ñëwaat na fii nga xam te ne mooy journal record lam ca xam ne nag mooy sanction yooyu ñu sanction mbër neexu ko te àndu ci. dëgg la ñëwaat na Assane mhm. ñëwaat na fi nga xam te ne mooy journal suñu làmb. Mhm. nee na GMI e yi fa nekkoon ba xale yi saccagé dañoo toog. croiser les bras mel ni ku nekk seen saal daal di seetaan dafa ñu ci yéeyuñu ci yàbbiwuñu ci Assane dëgg la Ndeye Mbacke coach Konaté ñu gën ko xam ci Amath Konaté moom moo nekk coach écurie bii di kaay baax moom nag euh, dikk na Leewtoo ñoom dem na suñu làmb dem na également record li mu wax euh, Leewtoo moom mooy moom mi ngi fay défendre euh, mbër yi nga xam ne dañ leen a sanctionné nee na mbër yi defuñ dara ñoom amun pouvoir seen supporters yi moo tax li supporters yi def ci kaw gradin yi mbër yi duñ responsable suñu làmb journal suñu làmb li mu fa wax moom moom GMI la teg baaraamu ti tuuma nee na bi affaire yi xew au lieu que ñu dem euh, gérer affaire yi dañu toog seen euh, coin rek di croiser les bras wax na également ci record nee na record moom li mu fa wax mooy que moom d'accordul ci sanction yi nga xam ne nii teg nañ ko ci mbër yooyu. ma nga noonu nag lépp simple lañ jëm ak nga xam te ne mooy franc franc fii ci Ndakaaru jaay moo fa teg tànk daal di jël raw gàddu ak Fatick moo fa jël raw gàddu ko Assane. dëgg la Ndeye Mbacke noonu la ko journal euh, suñu lambu titré nee na franc impérial à Dakar Doudou Sané carton à Kaolack et à Fatick nee na Doudou quatre euh, cinq gala yi mu def quatre yëpp daf ko remporté loolu nag li mu ko rapporté ci xaalis mooy deux millions neuf cent dix mille Doudou Sané moom moo gagné gala bi amoon le onze mars ci la te Manga 2 euh, organisé woon ko moo gagné woon également euh, gala bi Leewtoo tëggoon Joal le 8 mars 2021 dernièrement Leewtoo également gala bi mu tëggoon Ndangaan le 12 mars bi passé Doudou Sané moom moo ko jël ma ngi nuyu journal suñu làmb kam xëyee ak yéex a tàq-tàqam di Alioune Seye numéro 2 mu ne fukki at ak juróom-benn. Mhm. fukki victoire rek la ci am Assane. dëgg la 16 ans de carrière pour 10 victoires noonu la ko journal suñu làmb rappelé nee na Alioune Seye 2 a du mal à briller nee na ginnaaw bi mu defee 16 ans ci làmb ji. moom daal dix victoire rek la joto am jot na nag disputé dix sept combats maanaam dix victoire la am sept défaites nee na nag début yu tonitruant la amoon ndax bi muy débuté dafa euh, doon euh, nekk dafa nekkoon mbër moo xam ne nii bu euh, bu dikk la di am ay victoire mais dafa dem ba ci yàgg commencé di ralentir nee daal depuis boo ko en mille daanee Euh, le deux mille 2011 ba ba léegi daal ay affaire am doxul. affaire am doxul mu ngi noonu Alioune Seye numéro 2 la ca kañ nag mooy yi daal la mu ci xam ne ca journal mooy problème date bi ñu am ak promoteur yi. la mu bëgg nag mooy CNG daal di woo promoteur yëpp ñu xool ku ci nekk la nga moom nga jël ko Assane. dëgg la Ndeye Mbacke yi daal yi njëng benn jeune promoteur la bu nekk ci làmb ji di góorgóorlu moom nag li ko déranger moom mooy date yu bëri nee na CNG daf leen a war a woo ñoom promoteurs yi. wax leen nan la affaire yi demee ku nekk mu jox la sa date te lim gis sax mooy que ne daaw ñi amoon ay date ñoom ñoo war njëkk tëgg que ñi nga xam ne ni ren lan tëgg seen combat nee na moom sax bu ko joxee mercredi sax moom pare na pour tëgg ci moom daal l' essentiel mooy que mu tëgg combat yi nga xam ne nii jot na ko fiselé ndax mbër yi à chaque fois dañ koy woo di ko laaj kañ la ñuy bëree kañ la ñuy bëree. et daa métti na xaar bi dafa yàgg ca noonu nag la ñuy jeexalee xibaaru làmb ca record lañ jëm lam ca xam ne nag lutte sans combat royal année bii nii maanaam Modou Lo Ama ku koy xaar ci ren jii xaar ko déwén ndax kii di gas euh, Luc Nicolaï promoteur ba décembre la ko ab Assane. dëgg la Ndeye Mbacke loolu la record gis nee na vers une saison sans combat royal Ama Baldé moduloo Lo lig table sur décembre. nee na information yi am euh, au lieu que ñi yaakaaroon ne combat Ama Baldé ak Modou dina am ci saison bi ñooñu ba boo ñu euh, xool leneen lu def ndax combat boobu d'après information yu am. Euh, décembre deux mille vingt et un la ko promoteur bii di Luc Nicolaï prévoir combat bi nag ñi ngi ko tegoon le dix décembre deux mille dix-neuf donc bu dee décembre deux mille vingt et un la am dina am deux ans ci yoon bi te du mat. te xaar bi yàgg na. xaar bi yàgg na Jules Balde nee na saison bi la appal kii di du Nicolaï bu ko dépassé dañu koy tegal xaalisam dem xooli leneen. man ngi loolu nag di leen jaajëfal bu baax Assane waa loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi looy tàggatoowee di leen remercier Ndeye Mbacke di remercier internet Leewtoo TV leen jox rendez-vous lundi prochain incha allah ma ngi noonu nag kontaan naa bu baax a baax ngir jànnoog yéen indi leen li gën a fas ci xibaaru laam ci noonu nag damay gërëm sama caméraman beeg Mansour Fall di ko jaajëfal bu baax Bamba maa ngi leen nuyu Ousmane Ousmane Diallo kontaan naa ci yow trop laarmaan bi Kébé bég naa ci yow leen jaajëfal leen jox dig daje lundi incha allah boo week-end